mënuñu ko woon. mais vers 2015 yéen société civile bi activistes yi ñi béniroon l' action de la traque des biens mal acquis oui. dañoo désolidariser wu. mais évidemment pourquoi. Euh, beneen affaire les forces sociales. Oui. politiques oui. et médiatiques. dem nañu ba rendre compte ne dañoo détourner l' objectif de la traque. Mais, mais, que cette traque elle est politique purement mais, et simplement. mais Maïmouna ça confirme ce que je dis. parce ah. que au moment où on démarrait la traque. c' légitime et soutenu. ñun ci suñu bopp je fais peut-être partie de de ñi njëkk a tourner le dos à à li ñu waxoon Macky Sall et son régime que dem leen traquer ji lee biens mal acquis début bi bi ñu gisee ni il le faisait ñu génnee liste vingt cinq personnes ñu ne leen man je veux être républicain et respecter ma justice du ma préjugé ni jël nañu alalu réew mi mais comme justice ngi leen di woo na ñëpp wuyu ji ñu càmbar seen yëf mais on a vu que ñoom ils en ont fait un instrument de de répression de de persécution politique ñu attaqué ci kenn muy Karim Wade tout le reste ñu bàyyi leen man je fais pas partie de ñi naan CREI du lu baax warul woon am man j'assume mes positions j'avais défendu la CREI bi ñu koy créer je reste dans cette position. en dépit bi bi on l'a ramené suis ah. d'accord avec ça. bi ñu koy ramené waat fii j'ai soutenu cette posture j'ai dit un peuple en développement pauvre amul dara le peu de ressources qu'on a mu am ñu ko jël te on sait que des gens volent l'argent public on est on vit dans ce pays dañuy dund ak ay nit ñu nekk fii ils sont comme nous amuñu dara ñu nekk au pouvoir on les voit le lendemain ñu am un niveau de vie bu exceptionnel donc il faut que ce pays se dote d'instruments pour dire mais nañu xool lii lan moo koy indi est-ce que dañuy bàyyi les cours et tribunaux normaux ñu def ko c'est une option mais le pays souverainement peut dire je mets une une une cour qui s'appelle CREI avec ses xëy na am na lu ci manqué waroon nañ ko réformer permettre que bu ñu la toppee nga mën a def appel. wala nga pas de la voilà, de la charge mën nañ ko mën nañ ko réformer mais sànni ko man je suis pas d' accord. bref instrument bi teg nañ ko ñu topp ci ni 25 ñu annoncé ko peuple bi ñëpp tàccu ñu ñëw ba ci biir seppi kenn topp ko moom parce que moom la ñu bëggoon torpiller ba bu mu nekk candidat di leen gêner ñenn ñi ñu jàppoon ne y' avait des doutes légitimes que def nañu dara autant que kii ñu jàpp. ñoom ñu bàyyi leen recycler leen dugal leen seen biir ma ne ñii mënatuma leen suivre je les dénoncerai bokk na si li ñu tax ñun ñu ñëw en politique ni ñu créer ak ni ñu gérer la traque des biens mal acquis ak ni ñu recycler le système donc ce ce cet acteur politique qui est Karim qu'on ne peut pas comparer à Sonko de en termes de popularité et de ressources politique pour faire face à un bu jaarul yoon la même chose ngay wax ci monsieur Karim Wade euh, Khalifa Sall bi ñu ko attaqué il n'a pas eu défendre na boppam résister na on a vu des manifestations à Dakar mais on n'en a pas vu de l'ampleur de ce que ça a été bi Sonko wootee parce que le pays a évolué le contexte a changé et l'acteur politique Ousmane Sonko s'est affirmé pour dire man contrairement aux autres je revendique que dama juddu di vivre dans un état de droit dans une démocratie boo xam ni elle est ce qu'elle est mais elle est là du ma nangu celui qui arrive au pouvoir par des règles démocratiques utiliser notre justice pour me faire disparaître damay résister damay résister par tous les canaux constitutionnels la possible. résistance elle ne devrait et, pas être pacifique euh, elle a été pacifique stratégique et politique Maïmouna, dans une dans une démocratie la, la résistance est-ce que la résistance elle doit être violente la résistance est-ce que a la été... résistance elle doit être assimilée euh, à de l'insurrection la violence a été pacifique elle a été non, non violente la, violence, la, la, la résistance et elle le demeure xam nga Maïmouna quelquefois c'est l'oppresseur qui impose à l'opprimé les armes qu'il peut utiliser pour pour se libérer Ousmane Sonko a été un inspecteur des domaines des des impôts dugg politique avec beaucoup d'autres inspecteurs des des impôts ñenn ñi nekk ci ak moom ñeneen ñi nekk dans le pouvoir nekk ay inspecteurs des impôts Ousmane Sonko quand il voit des choses parce que mu ngi ci appareil d'État parce que am na ñeneen ñu fa nekk naan ko lii ñu gis baaxul mu génn dénoncer ko quoi de plus légitime il y a ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude et maintenant dans les nouvelles règles et principes ce n'est pas consacré dans notre pays mais waxin la dans les bonnes gouvernances dañu la ne la même chose que bu ñuy wax ce n'est pas consacré dans notre pays la même chose ici ici l'armée est muette la police est muette la gendarmerie mais l'administration ne doit pas être muette quand on vole les deniers publics may mun a boo nekkee ci structure administrative nga gis des actes illégaux ñuy piller di sàcc lu réew mi ton moo tax ma ne la c'est le sa loyauté nekkul vis-à-vis du président et de son parti ou du premier ministre c'est ta loyauté vis à du peuple sénégalais tu dois utiliser les moyens que tu pour le dénoncer bu fekkee da nga nekk un agent de l'administration qui fait part politique xëy na di nga wut noo koy dénoncer léeg-léeg nga jox ko presse wala nga jox ko keneen boo ko bëggee mais bu fekkee nag da nekk di politique nga gis ko tu le sors et Ousmane Sonko a fait ça xam nga lu a vu ça et de Il y a d'autres qui étaient dans l'APR, qui sont des inspecteurs des impôts, qui ont vu les mêmes actes, nëbb ko